làkk suuf ne ma ñokke jigéen ñi sal xolle yuuxu ma sànniw mënatoo ko eh, xanaa xamoo loo ci xamul moo xam nga dégg ko waaw son bi maa ko bind góob si amoo xam-xamu bind technique son bi déglu maîtriser nga son bu baax a baax bu demee dem dem yaa da nga dégg ma lee naa ngi nii lee naa ngi nii lee naa ngi nii lee naa ngi nii lee naa ngi nii lee na sama xarit maa ngi ci bind sama tur yaay. ah. yaay ponkal. ba jag ma si si jiir borom soxla ko bari. ci balaa ñor. tànk yaa njëkk a xam. macha allah Dieng Sall. maa la wax loolu. salaamaaleykum. asalaamaaleykum mbokki kontaan ci yéen. salaamaaleykum mbokki région de Louga salaamaaleykum mbokki département Kébémer. bilaay. seen comédie mu soo ñëwati na. fii ci géewul aaram. ñu di leen ni. Mhm. émission bi démarré dina Thierno Bamba. Thierno Bamba ñu gën koo xam. ci Cheikh Mbacke Dieng ak cierno Bomba. ñu commencé té seen émission bi nga xamni ne mooy Comedy Show. ñi ngi nuyu ñepp di sant ñepp di gëreem ñepp té di leen xamal ni nak fi la mburu mi tànga tay ji heure bu baax bi daara ngi ni ku bëgg a ba sey ba ñàkk kar ñu ci heure bu baax bi. Géewul ar Géewul ar Géewul TV. Géewul TV. ngeen dem abonné ji. ngeen dem abonné ji bo leen duggee YouTube. bo leen tapé Géewul ar day kole. waaw di ngeen gis yu neex ci biir. lépp lu xew ci programme Ngéwul Aar. mën nañu ko mi ngi ci biir. waaw waaye Thierno Moula. waaw Cheikh. dëkk bi. dëkk bi waaw. tey dama li ma fi sir sonné dafa bari. mooy. gars yi ma bokkal terrain bi toujours dañu compte ba. yéyéyé loolu moom. Cheikh Cheikh yow. bul jëm teesaay bul jëm ci eh, yow li ma la xamal dafa rëy de. wax ko noppil bala ma laa wéer. dama noppil bala ma laa wéer. yow li nga def Dakar. lan laa def. yow Dakar paasuma ba ma mën a dugal ah. nga daw jëkkati ko man dugal ko say kan yow du man de. Pikine joobee ma noonu. Eh. Eh, eh. Cheikh Pall boobu maa ngi weer. Pall yow li ma la xamal waxuma ko. wax ko kebe mais fii nga ma taakale ba ma àgg ndax. xam nga li ma la wax. Oh, waaye loolu c'est bon. Cheikh ko. Cheikh amul la nga kon bi ngay ñëw. waaye dara nga ko ma waaye. waaye kat. waaye Cheikh xool sa jiwaay nañu tamit sa façon sañ si jiwaay Cheikh li nga sañ sa tey contre temps rek nga def. waaye Cheikh eh, eh, wul dugg ci contre temps. yow lu nga may jox si sama yow jéegu si weer nga ma jox. ya kat. jéegu si weer rek voilà suñu ancien président Senghor nii la daan sos nii la daan sañ si. waaye man yee. Senghor laa dugg pare ba def nii. ni ñuy seetaan dañu gisee. Eh, seetaan yéen ñuy seetaan gisee leen. gisee leen kan moo ci dàqale sañ si. seetaan xool gisee naan gisee leen. yow Cheikh man du ma sa morom du ma sa morom mooy. waaw waaye nag Thierno waaw. balaa ñëwoon ba yàlla def ñëwaat nañ suñu émission Géoul Art. waaw. tey nag moom dafa am histoire bu garaawatil bu bu noor expliqué. Cheikh Bara bi ma foog. bi bi def buzz naa ci dëkk bi suñu cameraman bi de. suñu cameraman bi day def lu mu gis fi la mu waaye kew. ay waay sama journaliste bi qualifié na. est-ce que Cheikh def histoire boobu noonu ah. man boobu xëy naa mën a gis kuy caméra xool. nday caméra biddiw yi da xam ñaata nombre biddiw moo nekk ci asamaan waaye keroog dama dama doon compte biddiw yi bi ma gisee vidéo bi ñoom ay caméraman xool sa waay daal nekkee ay gaaf mu bunt bi jéem daal di ñaadam ñaadam ñaadam yéeg escalier yi naan day jéeme fi waaye bi nii tëy ba waaf ba maasee dër dégg naa dégg naa biddiw bi la génn biddiw bi la génn biddiw la doon filmé ci kaw parce que fi dafa sopp dafa sopp gis film ko romb day romb ay monsieur xeex man xaar ma jël waaye nag da nga def caméraman bi rek waaw am na leen lu ko daaxal c'est-à-dire maire boo xam ne bi mu ñëwee bi mu ñëwee te ñaari yuudi yuudi yuudi fii la démarré ci ci mi jaar mi ci rogalaat ba ci digg li ma am nga lu ma jox yuudi yoo xam ne si am nga lu ma jox Krishna film arab am nga lu ma jox waaw Krishna film arab bi wax dëgg la benn tàngoor am naa sama benn waay boo xam ne danoo toog di naan ataaya mu yëg yëg ñu jël siis yi. muy ñu jëlee siis ñu toog affaire bi mu ne tiir soit dañuy bëri benn waaye bi ne kanam ci kaw. gis naa ci koo xam ne xoolal dañuy bëri jël jël jabari jàmbur boo di dox di dox di dox di dox di dox ba àgg ko fa mu jëm bi mu ko jëppee xool naan kenn diw nekk du jabari mu bëmalaat ko mu daal mu wër bi di ko jëli waay. te gis nga affaire bi te xool gis nga affaire bi nga fi mbàkk waaw ah. xam nga Mbacke c'est que Mbacke. waaw Mbacke bi defoon affaire portable bi ci marché. Mbacke di gis nga bi mu tiitee ku doon tiit bi mu génne man pour woon Mbacke ab sàmbaraay la. mais nag gis naa ci caleçon yoo xam ne si. gis naa ci caleçon yoo xam ne moom kenn waru koy fanaan. non kenn du bu Mbacke. Mbacke moom caleçon yooyu mooy suñu Mbacke moom. tubaab yooyu mooy fanaan moom moom day weeru. caleçon dafa war a chimiser dëgg yàlla am bët bët bu am benn tilim tilim. am na meer bu ñëw de tiit naan muy man de damaa tiit ba jotuma boot sama doom ji nekk am mbett la xam ba jur sa kër gi la boot doom ji ñëw na la wuy sama doom ji

te man changé leen ni ngeen di tëddeeg seen borom euh, seen jabar yi. gis naa maire boo xam ne si <laughs> comme Cheikh la mu tënjoo xam nga dërëm yaay tii sa dërëm yaay yi. maire boobu la tëj ngay ñëw. ñu sol ñëw toog foro xeeñ xunu sol ay mbabal yoo xam ne si man dëkk bi li fi nekk lépp kenn mënu ko. waaye. waaw nag moom ak feetaam. gaynde jékki jékki fudd daal ubbali fudd na tey moom ma def noonu fi kii kenn. saaga. benn rawal benn rawal. gars yi tiit ku ne toog nii naan ndax day sóob rek ñaan day bukki jékki-jékki rek see. da tëddi. daal di dem tëddi. ñu xëy suba taseeg lëb lëb nu koy affaire tàppet ya nga def na ko yow sa waaye démb mu fudd rek na tey foog ma def noonu fi kenn rek yow nga dem sa bukki na ko est ba ma demee def na fa noonu ndaje kenn. ma ne ko su ma fa toogoon ñun ñu lay def noonu. wax na dëgg. kon bukki dafa tax bukki de. wax dëgg ba tey sama gars yi ñuy fàttali ni ñu ngi ci jéewal euh, comédie. Hmm. bu ngeen di dem di ñu seetaan di ñu suivre ci YouTube bi waaw Jéewul Aar boo ko tapee day collé boo ko tapee rek sunu xarit yeeg sunu doomu ndey mun a ñàkk ñu may ay dédicace ku ci mel ne sunu waa Ganga ay ñoom Makhari Seck ay a Maysa Ñeng Maysa Ñeng ah ay ñoom Pape Mbodj ñoom ñoom Xaadim Fall Xaadim Fall booy bu ah. lakk léegi noonu mais nañ ko sant nii rek mais booy jur sant boo xam ne ji booy boobu dafa soof de la ko nett li woon doo ko doo nga noonu hmm. mais naa ko résumé ah si bu xaadim xaadim bu fekkee yaa ngi seetaan xam nga bu baax liñ la wax. waaw di sant nag eh, ñi nga xam ne sii mooy sunu waa kër. mooy ñan sunu waa kër nekk sunu sunu waa kër yi. sunu waa ah, sama yaay dama mbeng sama baay maa ngi faal yow gépp dëgg yàlla ko fi yàlla yàggal te di sant nag ki nga xam ne si mooy Omar Fall di sama mag ju baax jooju nga xam ne si sa waay li ma ko xamal. Hmm. ah ah <laughs> yow see xam nga turu boobu noonu ñu ko doon wooyee. booy gas. neex ngumba waaw neex ngumba booy booy booy neex ngumba Omar affaire portable yi fii nii ci marché bi ñoo ngi mi nga xam ne si sama xarit la sama doomu day ñoom Baye Ndiaye maa ngi di bëgg bu baax a baax a baax a baax a baax ah Ndiogu Ndeye Ndiaye ne ko <laughs> boobu noonu dinaa ko fàttali mooy du ma taal pono du ma la kër jàmbur yi jamono yi muy xew. c'est-à-dire. ah wuu suur boobu neexoon na seen bàq suur boobu gannaaw gi. tuuti mooy ñëw nguma nga ma jeexal sa digg gannaaw. maanaam boobu damay xëcc ci ma yëre yi di xëcc. pour lan la di xëcc waaw ah, affaire la woon boobu lañ fa demoon maam yoogu taay ko yoogu yoogu kii. muy saaba saaba la sama ko bee moom saaba li ma xam ci histoire ah mais mais yow Cheikh sa bii nii yaa moom. yéel bi lim ndox bari na de. yéel bi yéel bi daa dox de. Cheikh sa yéel bi xam nga lu muy nuróol. waaw mooy ñam bi yooyu ñuy doog a sulli ci kii bi mooy doog a gas ñam. waaw waaw fekk fi ñu gasee ñam. wàcce tànk ah non dama lay expliquer. wàcce tànk commentaire ci sa yéel. wàcce wàcce wàcce ah, ma wàcce wàcce wàcce. yow yéel bi ñuy wëri boo ko defoon sa yéel sa yéel see na. kon attention double fracture nga. attention de. attention bon salaamaaleykum gars yi ci géewul géewul ah, ah, comédie ñu ngi leen nuyu yéen tamit seen tur yéen waa Géewul gépp di leen siyaar di leen wax ni fii rek la mbir mi heure bu baax bi fii la. ñii lay demee saa su ne. nii lay demee dee leen ñu kar. chaque vendredi. daan leen ko may ba ngeen kontaan ba ngeen bëgg. waaw lépp luñ ci bëgg leen danañ ko def. waaw parce que ñun fii nekkuñu fi lu dul di dégloo doole. ceeb sama xel daal di dem waaw Cheikh Thiel sa xel dem. waa ji dafa takk ñaareel. Hmm. bi mu tekkee ñaareel xam nga gone yi bari ay ay ay babas ay technique gone yi presque missile leen rek waa tak takk ñaareel day sànn waaw gone ko ndaw gi sëy si naan ko papa chéri mon amour bébé d'amour mes poissons nekk awa bi mer na def seen affaire awa bi mer na mer lu bi mer nag moom ah dañoo soxol nun yooyu ah dañoo soxol nga mu ah yéen nii damay def xaar ba waa ji waa ji wàcc rek sa waay ñëw ne aw bi daw ñëw ñun de sama yonent bi wàcc nga. ok <laughs> jege na ma ne ma mën na ko moom wàcce ko. c'est que ñoom nit ñu musooroo. nit ñu musooroo dañuy takk seen xel. seen takk du ñu amoon xel. voilà taatu ma gos rek. wuy ma may ñu son may ñu son. mais Dijé may ñu son. may ñu son Dijé. may ñu waaye di na way léegi. wuy ma lii moo di way. ah man way léegi yi ma gis nii xaw ma ko. am na ci booy bu muy dégg li muy way dara baax. non booy dañuy font ay. way booy bi day dégg amee di di di di di di teppeeku di wax loo xam si kenn ko. booy bi non seulement accent bi muy génn baaxul ndax dafa am jaaree comique day peer. day peer xam nga li gën a soof ci booy way way booy way li ngay way wërta peer dama booy la. day peer xam nga booy bi ma lay wax. booy bi booy bi application. application bu ma bëri application. Sinap euh, Beur. non Sinap. Sinap Sinap booy. booy bee booy Sinap booy booy boobu. booy bi di may ay application. non man vraiment booy yi man xamuñu ma yër. gone léegi. ah déglu tuuti way. xam nga yii way dafa baax. xam nga way bu yéetewul déglewul daa war a yëngali mag vraiment dugg ci xol te gis nga way yi boo koy déglu bu duggee ci xol day daal di wàcc dama la jaar dama la jaar fi muy jaar. muy jaar waaw. way bi day ñëw na baax ci sa nopp bi. waaw waaw ci nopp la jaar bu ñëwee ci sa nopp bi. day jaar nii. jaar. jaar nii ci xol bi. yaa ngi dégg. bu ñëwee ci xol bi. dootul mën a toog day wàcc ñëw ci tànk yi. bu ñëwee ci tànk yi dootoo mën a téye sa bopp. da ngay dem mooy tax rek ngay ngay ngay def sa. expérience mooy mooy war a ngay def. expérience la expérience expert de musique la. man xam naa ne man ay Youssou Ndour yi ñii xanaa xam nga daa topp sama gànnaaw daa daawa daawa daawa pour ma joob ak moom. baal ba kii ma la appel sama téléphone laa ne si kii yooyu noonu moom la ma soxla damay woo téléphone naa ma lu sën maa ci airport. xamal nga bi ko. kooku ab gardien la ko war. ak Marwan tam nit ci benn gàttal këram. xam naa ko. léegi rek bi ñu ma envoyé rappel moi. kat Cheikh nag. ah daaw ko jaay xaram tabaski. Cheikh ko jaay xaram Cheikh.

갔다. 예. 무장 야물로 봤더니 왜? 많이 무장 야물로 봤더니.

Abdul Yankı. Abdul Yankı bir fecirlik bıçak. Uyuma uyuma. Uyuma uyuma taxawal taxawal nga ci digël. Wala wala xati xam ni tool na. Waaw xam nga. Ni ci gëw bi ñaan bujaan da ci bujaan bi naan rek bujaan ni daaj plante. Fuural bi tas na ba gaay delo ci mu def ni. Gaay dem laal ko mu def ni ñëk dee na bi jéem a bu yàq mais wuy ma si am dëgg li jaaxal ka neex li jaaxal ka neex. yow a jëlee ma jox a jëlee ma jox man maa dina ma jox ma taaya voilà lii mooy déedéet bu ñaaw ma toog ci xol bi. doo tàkk doo tàkk dama ciy yëg maa ko xam. wuy ma wuy ma wuy ma xam naa la ci la yéen dëkk yéen émission baa ngi doog a jeex nag kontaan nañ ci boo ko seetaan demal dàkk ñu YouTube boo demee YouTube nga tàppe géewul aar day kole ko ak suñu affiche bu rafet bii nga gis ko nii ak zone bi zone noire bu ko demee nga gis nag seen comédie show de géewul ngeen gis ko ngeen seetaan ko di béggee ndax ñun ci béggee rek lañ nekk kontaan ci yéen bëgg ci yéen yàlla na leen yàlla defal jàmm képp kuy doomi gumba fa nga nekk yàlla na la yàlla teg loxo jàppale la kontaan nañ ci. géewul ca kaw ca kanam kontaan nañ torop torop torop torop waaw jërëjëf ñuy kontaan nañ ñëpp ñi nga xam te ñi ngi siiwul fii ci géewul TV yi waaw yaa ngi dégg ñi ngi kontaan nañ ñëpp di bëgg ñëpp comme sànq ni ko waxee ñi nga gërëm seen waa kër maa ngi gërëm suñu waa kër di gërëm sama yaay donc daa mel ne da ngaa nekkoon fa la yow waaw TV5 daa wute suuna ay waay yow it ay bonsoir ñëpp gis nañu ñu wax. mais français yi noonu la ñuy def kàlla. <laughs> noonu. waaw kon ñu gërëm ñëpp di sant di gërëm di di di di ñaanal ñëpp jàmm yàlla ñëpp am jàmm. ndax ci la jàmm ci la lépp. xaj ci la lépp ci la lépp xaj ci gërëm sunu waa samay jarbaat ya fa nekk sama rakk ya fa nekk di gërëm sama jabar jooju di séré séri Mara si soxo alias si soxo di gërëm sama yaay leena sunu mag Modou Fall di gërëm ñëpp géwul yëpp gërëm nañ leen raison bi yëpp gërëm nañ leen ak képp ku ne si gërëm di bégee bu baax lépp jàmm jaajëfal te man nag am na kenn koo xam si foog mu gërëm ko quoi muy gan muy Omar Fall de moom xam nga day sama waay ak ñu yàgg moom mooy ñëw ngumba moom El Hadj Dieng ñoom ñaar moom ngumba dañ koo poñe rek rek ñu duñ ko bàyyi ñoom ngi leen di nuyu di leen bëgg bu baax a baax di nuyu Mbacke Dieng mi nga xam ne si moom sama xarit la sama grand la lu ne laa koy yëpp toolu mel. di di nuyu di nuyu Papa Dieng. beneen Papa Dieng nga xam ne si bopp leer bi gis nga boobu nan moo ko def. Papa Dieng yaay jee doon passé mu ñëw tëdd ci wet gi yaay ji di teg feer bi nii rek mu teg ci bopp bi karaw gi de moo tax. beneen noonu eh, eh, eh. Papa Dieng